Euh, ñuy dalal tey euh, ki jiite euh, Raja muy réseau des anciens G6 d'Afrique section Sénégal Denis Ndour ñu lay nuyu di la dalal sëñ bi Ndour. di nuyu di jaajëfee ci seen invitation. Mm, voilà tey justement balaa ñoo jàll ci waxtaan bi ñu bëggoon a xam lan la Raja di wund lu ko tax a ak ci yan ci lan lay dox. ak yeneen i réewu Afrique te am seen siège fële sa Ouagadougou hmm. euh, Sénégal nag ne am ci ab démembrement Raja nag mooy di que ne kuréel boobu day dajale ay euh, citoyens yoo xamante ne dañu nekkoon euh, bi ñuy jàng ci si école yi ak ci université daara yu mag yi hmm. bokkoon ci mouvement bu ñuy wax GEC religion catholique mm-hmm. mouvement boobu nag ñëpp ci daan amul musulman amul chrétien mm-hmm. waaw léegi nag euh, bu ñu demee ba pare seen jàng ba commencé liggéey moo fàttali ne ñi nekk ci bokk ci raja euh, lépp lépp nga ci gis am na ci ay médecins am na ci ay euh, jàngalekat am na ci ay magistrat am na ci yaa xam daal loo ci mën ci lim ci ab euh, liggéey. donc ñooñu ñoo dajaloo bëgg andi seen contribution ci dëkk bi nu muy doxe sur le plan politique socio-économique et culturel. Mmh. surtout dans le cadre de la réflexion. Euh, donc mun naa la daal cadre de réflexion et d'action la maanaam ay waxtaan yoo xam ne ay ay ay jëfin yoo xamante ne dafay dara ci doxalinu réew mi. Mhm. loolu mooy wundu Raja. Mhm. donc situation des droits humains bokk na ci li Raja di yëngu. waaw dëgg la parce que euh, dañu ne ñun li mooy la doctrine sociale de l'Église doctrine sociale de l'Église euh, bokk ci lu muy njëkk a gën taxawal mooy àq ak doomu aadama. sëñ bi waxtaan bi di am jamono ji nga xam ne Sénégal ñoo ngi fàttaliku 23 juin mu tombé. bés boobule mm-hmm. ndax tey jàpp nga ne euh, ni ñuy doxalee euh, maanaam nguur ni muy doxalee ci mim réew euh, am na lu mu jàng ci li waraloon xeexu 23 juin. waaw man dama jàpp ne dafa mel ni jànguñu ci dara waaye loolu aussi dañuy situer responsabilité yi parce que boobu nga xool li ko sookee woon mooy naam day sart réew mi bu ko kenn laal loolu moo nekkoon li nga xamoon moo ko sookee dañu bañoon ca ca yamaano jooju ku laal ndeyu sart réew mi ndax rek pour andi mbiru troisième waaye boo ko xoolaat loolu la ñuy laam-laamewaat ci jamono ji ñu toll et donc yaakaar na woon naa ne dinañ dépassé loolu waaye dañuy dama gis ne dafa loo xam ne duñ koy réere mooy lan mooy que ne ak alternative du benn hmm. maanaam alternance dafay mel ni rek jógal ma toog ñii fi toogoon nañu jóg ñeneen toogaat waaye li ñu ci toogaay bi moo ñu andil ñu leneen loolu la ñuy wax alternative hmm. malheureusement nag loolu la ñu ba tax na Sénégalais yi dafa mel ni lañ doon jooy ci jamono boobu léegi moom la ñuy jooyaat ci jamono bii ñu toll. Mhm. loolu nag dañ ciy jox ne ah responsabilité bu mag ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiite maanaam dañuy politique waaye si askan wi parce que askan wi ñoo leen fa teg. Mhm. te dañuy ne ñun dañuy dund ci dëkku démocratie maanaam nguur goo xamante ne pour population bi la pour askan wi la. Mhm. ci askan wi lay dellu te ci ci ñi koy doxal ci waa askan wi lañu ñu bokk. Mhm. donc loolu nag pour mu nekk loolu mooy que ne askan wi dañu war a bàyyi xel ci li nga xam ne dañ ko dénk muy jiitu réew mi ak ñi koy jàppale ci liggéey bi ak liggéey ci gox goxaat mhm. que ne liñ leen jox pour ñu doxal ko loolu pour askan wi la askan wi nag bu ci gisulee boppam war naa toog wax ak ñoom pour wax leen ne ah du lii moo taxoon ñu tegal tegoon leen fi et defe naa loolu fi mu nekk nii ci jamono ji ñu toll. dafa mel loolu mooy moo fës. nga foog ne euh, justement lan moo waral euh, fàtte googule euh, souvent ñu koy nemmeeku si njiit yi comme ni nga ko waxee. waaw waral mooy le plus souvent nit ñi jiite dañ dul am li ñuy wax le patriotisme. Mm. man dama yàgg di tukki mm-hmm. da ngay gis ne ñi dañ koy def avec désintéressement. Mm-hmm. maanaam mu tuñu ci dara dañuy falu parce que dañu bëgg. rentrer dans l'histoire de leur pays mm-hmm. pour wane ne am na lu ñuy defal seen réew mm-hmm. waaye boo ko xoolaatee ñun ci ni dundee fii suñu élite euh, yi lu ci bëri da nga naan ah man de su su ma ba jot ci nguur yi rek mooy tekki na maanaam sama sama coono jeex na mm-hmm. donc damay fajal sama bopp fajal ñi nga xam ne ñoo ma wër esprit boobu nag daan ko jógewul ci ki nga xam ne moom la ñuy tabb ci ki nga xamante moo moo yóotu pour ñu tabb ko Euh, tant que mu ngi xalaatee noonu rek yaakaar naa ne li may duppee alternative du gaaw parce que da ñëw rek pour def da naan jógal ma waaye da def li keneen ki defoon. Euh, tey ci wàllum ak ak yelleef doomu aadama noo koy évaluer ci mim réew. waaw su ma la su may wax ci biir moomu damay faral di ko yombal ci benn mbir. Hmm. maanaam tey comme dëkk bi de Sénégal dafa bokk ci euh, dëkku euh, association bi gën a mag ci àdduna bi di euh, kuréel bi xam ne mooy dajale dëkk yëpp ñu koy wax Nations Unies hmm. dafa am benn bànqaas buy jublu ci lépp lu jëm ci mbiru àq ak doomu aadama hmm. ñoom dañu am benn nattukaay boo xamante ne. koo xamante ne sa dëkk mu ngi koy doxal rek dañ lay jox statut A mhm. waaye même matali nag ñun Sénégal ñàkk nañ ci statut boobu ba léegi ci jamono euh, euh, Macky Sall ñu ma koy jéem a dabu mais ba léegi mënuñu koo dabu ñu ngi ci statut B mhm. donc loolu rek suñ leen ne ne ak ak yelleef doomu aadama sooxee na fi mhm. waaye ñii ne dara baaxu waaye li ñu war a ñoŋalaat bëri na tey damay jël rek lu jëm ci mbirum Euh, ak bu jëm ci mbiru droit euh, de manifester wala liberté d'expression mhm. wala droit économique social et culturel maanaam lépp lu jëm ci dëkkuwaay ci mbirum wér gu ci mbirum koom-koom ci mbirum jàng euh, loolu sooxe na donc te loolu ay droit la mhm. et loolu aussi état daf ci am rôle rëy bu a jouer mhm. donc mun naa jàpp ne daal ak yelleef doomu aadama globalement booy xool yooyu jalgati mhm. ngeen euh, génne benn communiqué euh, di ci wax ne tey euh, Sénégal daal dina nag raté rendez-vous ratifié ak it signé traité bu ONU jëm ci interdiction des armes nucléaires. lu lu ñu mën a jàpp <laughs> waaw waaw li tax ñu gis loolu mooy que Sénégal dafa bokkoon ci ñaar ñoo sooke woon. mbirum traité euh, contre les pour l'interdiction des armes nucléaires mm-hmm. te loolu c'était en 2017 mm-hmm. donc bañ koy def nag Sénégal bokkoon na ci ñi ñi doon encouragé pour loolu ñu mun ko taxawal ñu taxawal ko waaye bañ ko taxawalee ba léegi euh, Sénégal signé ko ratifié ko ba pare Sénégal dafa bokkoon ci dëkk Afrique yi nga xamante woon dañu jàppoon ci beneen traité bu ñu naan traité Pelindaba mm-hmm. bu amoon en 1996 ñu waxoon ne dañoo bëgg a ba Afrique nekk zone boo xamante ni mbirum nucléaire du fa dugg mhm. maanaam du fa duñ ko duñ ko fa fësal waaw ñu demaat ci defaat beneen traité xamante ne sax moo ko gënoon jiitu te Sénégal signé ko mooy en mille neuf cent soixante huit ci euh, euh, non prolifération des armes nucléaires maanaam bi ñu jàpp ne sax foo xam ne dafa bëgg lawal mbirum arme nucléaire mhm. léegi nag gis nañu ne tey day depuis démb euh, ñëpp ñi nga xamante ne nañ du bokkoon nañ ci initiative bu 2017 boobu ba firndeel ko ndax signé nañ ñu mm-hmm. am daje bu rëy bi euh, la rencontre des états parties bii mooy daje bi ci jiitu nag te ñu xam ne yëpp ci Nations Unies la bootoo mm-hmm. mu am cent vingt téeméeri dëkk ak ak ñaar fukk ak ñaar yoo xamante ne signé nañu ak ak juróom-benni fukk ñaar yoo xamante ne ratifié nañu waaye ñu gis na Sénégal ba ñu xëy nañ defagu ko ah, li ñu ci jaaxal nag mooy du caag ne xamuñu li xew parce que ñun ñii Raja am nañ ci interpellation bu ñu def ak ministre des affaires étrangères mm-hmm. ah, defal nañ fii benn ndaje bu ñuy bu ñuy defoon la déclaration de Dakar ak yeneen euh, dëkk Afrique sowu jant yi ñëwoon dox ci ndaje boobu. Mm-hmm. Euh, jébbal leen ko pour wax ne a ah, Sénégal war na góorgóorlu ba balaa daje bii di am mm-hmm. mu mën a signé waaye ba léegi may wax yow Sénégal si wul ratifié wul mm-hmm. et li ñu ci gën a jaaxal it mooy gis nañu ne ay dëkk yoo xamante ne wax dëgg yàlla gën ñu avancé ci mbirum démocratie bonne gouvernance te ñu ngi suñu wet mhm. te te ñooñu signé nañu ku ci mel ni Gambie ku ci mel ni Côte d'Ivoire Bissau Togo wala sax Cap Vert bi mhm. récemment mhm. donc ma jàpp ne wax dëgg yàlla euh, Sénégal war na dem def a def jéego pour signer traité boobu et justement lan nga jàpp ne moo waral pataaral gi waaw patronage bi ak yéexaay bi dama yaakaar ne peut être xëy na président de la république moo ci gën a dugg moo ci dugalul loxoom na mu waree. Hmm. Euh, mbirum volonté politique ndaxte booy xoolaat euh, ministère bi nga moom lañ jagale woon pour mu def mbir mi bougé wul mètre. Hmm. donc ma jàpp ne euh, na président de la république bu bu ci àddoo xëy na mbir yi dina gën a gaaw parce que aussi décision boobu suñ koy jël il faut que moom am ci kàddu ba pare aussi président de l' assemblée nationale. Euh, assemblée nationale aussi ñoom dañ ci am wàll surtout suñu demee ci ci mbirum ratification. Mhm. donc ñu ngi continuer daal di ñaaxaat ministre des affaires étrangères waaye aussi di lancer un au président de la république pour que vraiment ñu rentrer dans ce concert des nations. parce que Sénégal dafa am benn taxawaay bu rafet bu mus a am. Mhm. ci Nations Unies ak ci mbirum diplomatie. kon nag waruñu ko ñàkk foo xamante ne dañoo joxe suñu kàddu ba pare. ñu war a dem pour agir ñu ñu taxaw ñu di bàyyi ñeneen ñi ñuy agir loolu loolu dafa rafetul moo tax vraiment ñu bëgg Sénégal ci ni mu gën a gaawe mu mu mu ratifier te signer euh, boobu. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Denis Ndour. maa ngi lay jaajëfal merci beaucoup.